hein, le miséricordieux. Donc, euh, cette maladie, c'est la volonté divine. Chaque volonté divine passe par l'invisible ou personne visible, l'individu. Bien entendu, depuis Chine, que ce coronavirus de c'est là, depuis là-bas euh, est propagé un peu partout dans le monde jusqu'ici. Mais j'ai bien dit au président de la République du Sénégal, euh, euh, on doit rassurer les Sénégalais. Pourquoi? Parce que on a un homme de Dieu qui se trouve nulle part sur la planète, qui est notre sauveur ici-bas et dans l'au-delà, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim qui a été exilé par les colons de l'époque. Il a bien dit que munna alayya bi hulumil asfiya wa bi kitabati kulla dashfiya. Donc c'est-à-dire faut pas qu'on minimise, le remède, le remède euh, si on voit un serpent là-bas, dans les Niayes, qui morde quelqu'un, euh, un individu vient de faire comme ce qu'on appelle l'ougou, en répétant des mots, sans voir un médecin. Donc il nous faut ça aussi. Mais comme l'État, c'est l'État, Euh, le chef de l'État et le chef de l'État avec ses directives. Nous demandons aux citoyens, surtout les jeunes, de respecter la parole du chef de l'État et son orientation, parce qu'on a vu le calife et tous les khalifes même, Serigne Mountakha, qui a bien joué son rôle en tant que guide spirituel, en tant que chef suprême spirituel, et les autres khalifes. Donc tout le monde vient de respecter euh, la décision de l'État par la voix de notre chef, qui est président Macky Donc nous, euh, on peut rien, on peut rien faire. Euh, d'autres. Euh, que ça, en tout cas, tout le monde, euh, Inch'Allah, surtout, surtout de, de la famille euh, de Sidna Ousmane, euh, qui est mon père, euh, et les disciples et les autres disciples, tout le monde va. On est des citoyens, on est des républicains. Donc il faut euh, qu'on soit respecté. les directives de l'État sëñ bi ginnaaw bi la nuyoo jox la sa wàccuwaay gis nañu démb njiitu réew mi jàkk jàmmarloog askan wi. Hmm. Euh, annoncé itam ay mesures tey mu jël dogal dalal leen waxtaan ak yéen ngir ñëpp booloo ànd doon benn ngir xeex feebar bii di coronavirus ban jàngat nga mën a am ci euh, jéego yi nga xam ne njiitu réew mi teg na ko ba ci di leen dalal tey. waaw ngeen baal ma bala may tontu foofu ngeen baal ma nasaraan yi xam nga loo jàngul di ko làqar ci moom eh, chef d'état bi moom pour ma wax ci moom sax day xaw a jafe <laughs> ndax ne war naa bu ma ñëwee moom damay kii damay audience bi dama koy xàjjale sept minutes yu njëkk yi nekk xuloo waaye comme daf maa dominé Euh, moom ma wax ci moom du porté ndax je beaucoup wane naa ko nu ne waaye bi ma duggee li ma ko njëkk a wax rek mooy da ngay am ndam nee naa ko itam feebar bi fii du fi avancer Sénégal na sa xel dal du avancé waaw sama conviction la donc li nga xamante ne bii parce que moom mu ngi ci continuité am rek waaw président Macky ku ko xam moom daanaka lu man di xew itam même comportement même attitude xanaa ay ajoutement dina ci am ay yooyu rek yu muy yokk mais lu man di xew itam moom ah, mi ngay ko dalam hmm, mi ngay expérience am mi ngay ko njàmbaaram ah, mi nga ji itam bëgg askan wi surtout stress bi nga xamante ne bii mooy xew waaw loolu dinaa ci profiter wax Sénégal yi nit fal yatawakkalil mu'minuuna alallah nit dafa war a ñeme ragal baaxul ragal baaxul waaye bu ma nuyoo kii mbaa bu kii sëqatee man bi ma avant may génn damay damaa ñaan ku tedd ki ne ko bu ma fa sëqat ndax sëqat day <laughs> bette te boo sëqatee maa nga kii ñoo ne mu ngoog donc nit dafa war a ñemee waaw faw fal yatawakkalil mu'minuuna alallah te dee kenn mënu koo daw waaw wala kuntum fi burujin mushayyada <laughs> kenn mënu koo daw Macky moom dañu koy ñaanal rek dëgg la sax sëriñ saa ngi koy ñaanal waaye man nag maa ciy raw ndax maa demoon ba Cees jàpp ci loxoom yëkkati ko waaw maanaam dama doon koo xamante ni bii man du ma defantu du jàppantu. waaw ci li ci yéen jamono ji muy euh, sensibilisation ñeel naka lañuy def ba sàmmonte ak euh, charte yi nga xam ni nguur gi mu ngi koy jël maanaam respecté euh, geste li ñuy wax geste barrière ci foofe ban sensibilisation ban appel ngay lancé ñi nga xam ni tey. ñoo nekk si ginnaaw mooy mooy respecté ko rek mooy respecté ba nekk citoyen kay nekk républicain. am état am sa chef d'état état bi am lu mu dogal ci ndigalu chef d'état bi citoyen bi ak républicain bi kay lu mënoo waroo def lenn lu dul respecté ko loolu moom man nag dafa am beneen façon bu may wax ak sama njaboot sama njaboot dafa bari ñoo xam ni dafa bari ay daanukat li ñu tuddee daanukat <laughs> waaw moom tax beneen façon laay wax ak ñoom mais fii li may wax rek pour tout le monde mooy un citoyen moom dafa war a respecté dogalub état <laughs> kooku moom meneen na may waxee ñoom nag ñoom ba maa ko xam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf euh, Issa Thioro mu doonoon donc Serigne Modou Kara Mbacké euh, di guide religieux nekk itam euh, di yëngu ci wàllu politique jiite lang bi di PVD. moom la njiitu réew mi dalaloon jamono ji waxtaan ak moom ba pare euh, ginnaaw ba mu fi bàyyeekoo nag mu dénk ñu kaddu yi nga xam ni muy ñax ñëpp rek ñu ànd sàmmoon.